couronne roi des arènes deux fois ci benn saison. Mhm. loolu dafay dugg ci qualité des combats. Mhm. palmarèsu athlète bi. Modou Lo palmarès bi mu def. Mhm. tey dafa dafa permettre na ko tey mu mën a taxaw devant la scène di réclamer le titre de meilleur lutteur de l'arène. yépp loolu mooy critères yi daanaka. yoo xamante ne nii moom la ñu mën a taxaw ne Modou Lo c'est le meilleur lutteur de la saison. waa xam nga mooy li ma wax rek. alamit mën naa d'accord ci li nga wax mën naa d'accord ci li wax mën naa d'accord ci li Boucar wax. mais bu keneen amee xalaatam nañ ko nangul. Mhm. loolu mooy àddina. Mhm. Modou Lo est le meilleur de pas forcé que voilà de la saison c'est pas forcé que tout le monde euh, euh, que tout le monde doit s'agenouiller devant Modou Lo mais effectivement c'est vrai. Mhm. am na ñoo xamante ne boo leen ko laajoon dañu naan d'accord. te boo leen ko waxoon léegi boo leen ko laajoon ñu argumenté ko. te gis nga problème yu mel ni souvent. chaque année làmb dund ko. tey si le CNG était bien préparé. at mu ne dinañu xam qui est le meilleur lutteur kan mooy le meilleur espoir mm-hmm. kan mooy le maire nangam ci wàllu bac culture kan mooy le meilleur nangam le meilleur manager le meilleur entraîneur le meilleur équipe nangam ak nangam ak nangam mm-hmm. te lu war a am la am na ci basket am na ci football ba ci nawetaani sax. mais bu unanimité amee sax est-ce que euh, trophée meilleur lutteur bi dina amati valeur. waaw unanimité amee. mais mais da ngay xool kon da jàpp ne kon bu ab unanimité amee ñëpp d'accord chaque année dañuy d'accord rek. jox ko déedéet déedéet déedéet xam nga tey Alamine. tey valeur xam nga sax problème xam nga xam nga Alamine tey boo demee. Mm-hmm. Mm-hmm. l'ANPS. mu ngi décerner ay trophée de meilleurs sportifs de l'année. Mm-hmm. chaque année. dana jël meilleur lutteur ci wàllu simple. mais suñ ko désigner wala ñu distinguer ko la majeure partie doo gis kenn ko critiquer waaw du dëgg mhm. nommé nañ ko fi Doudou Sané nommé nañ ko fi général bu Malick monsieur nangam nangam nangam nangam mais le CNG est le maanaam moo war a nekk la voie autorisée waxuma ne li lutte bi daf baaxul de mhm. mais bu CNG jugul nekk la voie autorisée mhm. pour di décerner ay prix suba Mm-hmm. di nga dégg seigneur des arènes mm-hmm. di nga gébb door mm-hmm. sabar door géwél door gé nangam nangam après mais pour pourtant ci football dañuy gis FIFA the best FIFA moo koy organiser mu nekk ballon d'oru FIFA ñu tuddee ko FIFA the best chaque année FIFA joxe ko à côté nga am France football bu joxe ballon d'or lépp coowal ballon d'or mais FIFA joxewu ko mm-hmm. France football moo koy joxe mm-hmm. di un journal français mm-hmm. Zidane jël na ko fa Messi jël na ko fa Cristiano Ronaldo jël na ko fa tous les grands joueurs tous les grands joueurs presque jël nañu ballon d'or France football donc pour man loolu est-ce que du day gën a yokk làmb bi rek Messi Messi ko ko joxee Messi ci plateau télé premier ballon d'or am téléfoot keroog ñu ngi ciy wax téléfoot lañ ko ko joxee woon ci un dimanche mu ñëw nekk xale je pense que c'était en ñoom kaka ñoom tam ci plateau téléfoot la ñu ñëw ñu décerné leen seen ballon d'or coow loo xam ne ça a duré depuis pratiquement léegi ma trente an mhm. moo coow roi des mhm. ak couronne royale mhm. da ko fi fekk waaw mooy barki de mondial bi ñu laajee le président du CNG lan la wax de reconnaître ñu benn couronne royale parce que organisé wuñ ko donc li nga wax ni lu possibilité la nee naa suba Leewtoo war na mën a jël benn prix ne maa ngi koy décerner meilleur espoiru làmb Mm-hmm. danga koy nangu. Mm-hmm. ça ne veut mm-hmm. suba war nañ mën a jëli Momo Ngom ne décerné nañ ko tey prix boo xam ne mooy meilleur batteur de l'arène. suba nga jëli Mbaye Ngom d'accord naa ci yooyu. mais yooyu yëpp dama ne ki ko war a oof wala mu war ko accompagner ba tey trophée bi tey bu maanaam bu génne dina am ay sabab. dina am cëslaay mooy le CNG. man loolu laa gëm. tey peut-être trophée ANPS am na cëslaay te pourtant mm. ANPS bokkuñu man affilié wuñu ci CNG mais presse sportif la. Mm-hmm. mooy ay mooy englobe ñu mooy ay taskati xibaar yuy wël yuy yëngu ci wàllu tàggat yaram. Mm-hmm. ñoo daje. waxtaanee ko xool critère yi xool nangam ak nangam. pourtant même même même même scénario moo xew ak Lutte TV ah, Awards parce que yaakaar naa ay de lutte ñoom ñoo ñoom ñoo waxtaan seen biir. Mhm. tànn ah bon ñaata reporter dafa am ay reporter yu bees. ah problème bi mooy man fi ma bëggoon ñëw hmm. fi may fi ma bëgg a ñëw sax. wax yan reporteru lutte la. les reporters y avait y avait euh, hmm. ils sont nombreux fi jaar. ah ok kon dafa am ci bokk am lu ci bokkul quoi. yow si nga bokk. ah man de yëguma ko aw ma ci xalaat. Hmm. xam nga problème bi grand fi ma bëgg a ñëw sax mooy ci côté grand bour ma ko ñëwaat de passage. Ah. mooy gis nga làmb ji. maanaam ku bu ku nekk bëgg fëgg dënd ne làmb rek. problème bi non non non bu ko def yeggul foofu. non parce que xam nga problème bi. non non non non non waaw may ma développé rek may ma développé. non bul xoolal hmm. ah. amul njëriñ. Ah. gis nga bërëngu hmm. dajul suuf hmm. donc nañu wax suñu pensée rek ah. mais bu ñu wala wala bu ngeen neexee tamit aussi ñoo soo may soo may may soo may may parce que xam nga li tax bon parce que non parce que concept concept li TV bi c'était fexe inviter le xamante ne ñi ay reporter lañ ñi ay moo dañuy waxtaan dañuy développer yaakaar naa def nga si plateau hmm. Dembélé def na si plateau def naa si Lamine def na si ñu ne dañuy cibler ñi ñu invité. ah ok. léegi si ciblage bi. ok moo dañuy fexe invité la maximum. ok mais pourtant am na ñu bëri ñu invité ñu décliné. ok Modou Mbaye man invité naa ko trois reprises yoo xamante ne man dama koy invité pour mu ñëw joxe AVM joxe votam joxe kan mooy le meilleur kan mooy le meilleur espoir premier deuxième mu décliné. donc du ma ne déclaré sax mais mu faussé rendez-vous Modou Mbaye ba samedi man ak moom déggantaan la samedi. comme da ngeen ciblé dañuy waxtaan non may ma comme da ngeen ciblé rek. non kon bu leen ni l'unanimité wala nangam. non bu ñu ciblé nañu woo diw. non diw moo ñu woo ñuy reporté lamb le reporter de ah ok kon ma faram ay géwél lañu. non du yaay reporter wala. mais ñëw na fi non. non je ne dis pas ñëw na fi toog. da ngeen mais mais mais buur pourtant même France mooy sans journaliste rek lay tënku ci àdduna bi non non non léegi dafa am benn terme léegi France dafa am benn terme bu Boucar utilisé. mooy dañu ciblé. waaw moo tax ma ne ko comme da ngeen ciblé kon am na ñu ci bokkul. mais ciblé mooy les reporters de lamb. mais ñu ne la waxee ay ñu reporter la yow ci nga bokk man man man nañu. reporter la dañ ma ci invité man aw ma ci xalaat. si am nga si xalaat. comment ça.

journaliste reporter yëngatu si wàllu làmb mm-hmm. yaakaar naa moom lañu fi wax si réunion mm-hmm. ñu ne kon dañuy def ay plateau spécial xamante dañuy invité gars yi ñuy wax seeni xalaat si meilleur lutteur simple meilleur lutteur frappe affaire demee noonu tey yaakaar naa démb la def na si plateau def naa si plateau man invité naa Modou Mbaye mënuñu invité ñun ñëpp qu'on se dise la vérité. il y a plus de plus d'une cinquantaine de personnes yu reporté am na xam ne da ngeen woo ñu décliné nga invité ñii ñu fausse rendez-vous nga fóoti nga invité ñi man Modou Mbaye li tax ma tontu ko du question li ne contester roi des titre roi des arènes. Mm. parce que man je mm. sama gis-gis la sama gëm-gëm la sama philosophie la philosophie boobu noonu laay doxee. Ah. mais li ne bon certes sax man bëggatuma woon di si ñëwaat parce que comme vraiment c'est un frère un confrère génn na génn na waaw génn na personnel génn na personnellement vraiment am grandeur ne maa ngi jégalu Boucar hmm. sincèrement man sax dama rus te aussi réccu naa sax man li ma ko tontoo sincèrement parler mais li li ma mooy li mu ne wàllu TV da ngeen yabaatee wax ba tudd si sama tur man moo tax ma tontu mais tontu ma woon. Mhm. pour le titre de roi des arènes parce que pour man muy Modou muy Siteu lu si waay am sa kër nga yóbbu. donc man euh, te man te man euh, sama baat ci kaw li ma à chaque fois rek tey euh, dama jàpp ne lii liggéey la. Mhm. fu ma war a jaar te war a jàll ci leneen moo tax damay fexe le maximum. Mhm. ma si professionnel bëgguma di dugg si ay détails bëgguma di dugg si ay vie problème mu jàmbur. wala vie privée jàmbur bu ñu ko organisé tey. c'est certes am na ñu mu déranger parce que am na ñu naan ne Lutte TV du moom moo joxe meilleur lutteur non grand mais c'est que ñi toog naan du très TV mooy moo war a joxe meilleur lutteur des mots non attends maanaam mën nga wax li nga wax gis nga man lii laay bañ ci sphère làmb mhm. am na ñu mu déranger ñan. mais bu bu déranger ñooñu. ça ne veut rien dire. le trophée a été décerné à Modou na ñi mu déranger bu leen déranger dañuy sonn teewul làmb dafay dem. moo tax li am naa droit pour wax leen ko surtout vous les jeunes reporters. Mm-hmm. mooy il ne faut pas avoir cette tête là. Mm-hmm. wala cette idéologie là ñii ñoo farak ñii man tey fi réew mi toll fi làmb toll man tey. Mm-hmm. ak man fi ma jugee man ak làmb. lu ñuy def ci làmb am naa ci am naa sax benn kaata. pour dire vrai. waxuma da ngeen war a invité ah ça ne me dérange pas yéen ko yéen xam ngeen samay. samay man. mais moo tax boo ne dañu distinguer on a fait des distinctions. yow mi yow mii nekk un reporter yàgg ci lam seen patron Ibrahima Faye Beuz bi mu ñëw ci làmb fii la ma fekk. ñu mu njëkk jox loxo ci laa bokk ñu mu njëkk waxal ci laa bokk. Mm-hmm. donc kon moo tax ma ne dafa am reporter yu jaune. Mm-hmm. ak yu ay journaliste sportif yu noir. Mm-hmm. ay reporter yu rouge bordeaux. parce que donc da ngay comprendre. mais mais aussi fi ngay gisee tamit. mooy da nga ah, jàpp ne dañ ma seppi. non non kenn mënu ma seppi ci làmb man je me suis battu seul. Uh-huh. man kenn mënu ma sepp ci làmb. mais mais mais le, toujours sur le TV Awards bi dégg nga Baye Ndiaye il a été nommé le meilleur promoteur de lutte. waaw non je. xoolal d'une manière générale maanaam. man buur du ma personnaliser un débat. buur li mu bëgg mooy lu TV awards bi maanaam CNG. déedéet déedéet ah ah CNG était plus habilité à organiser déedéet walaay waxuma loolu. non non eh, Boucar mais pour man eh, c'est le mi bu ñu doon joxe trophée ki gën a sañ wax ci àddina. Mhm. buur lañ koy tappal. man du ma bëgg a wax lii wax lee mhm. maa bëgg jaar fi mhm. jaar fee bëgguma wax loolu dafa am sama benn pensée bu ma doon raté pour nit ñi comprendre ko muy ci ci roi des arènes rek ci empereur rek li TV over sec ginaar over sec maanaam dafa am benn principe mooy développé mooy dama ci dama ci pointe du doigt la responsabilité du CNG tey bépp trophée bu ñu desal na ci làmb moom moo waree moo war a wane le bon exemple moom moo war a wane certains critères ci côté boobu laa waxee man awma ci problème mhm. mais quant Euh, je ne vois pas au contraire sax j'encourage mm parce que sama njëlbeen wax. parce que yokkute làmb la. non xam nga sama njëlbeen wax. foofu laa démarré dama ni. Mhm. dana dolli. Mhm. te ku yokkul da ngaa wàññi. Mhm. man loolu laa gëm. ku ne am nga droit ku ne am nga na ñu mu déranger. xoolal du kaaba gee ci màkk sax am na ñu mu déranger. et Baye Ndiaye promoteur de lutte. waaw mais. comme tànn ngeen ko ba ni mooy maire promoteur. non tànnuñu ko c'est ça le problème xam nga bu ne tànn ngeen ko. tànnuñu ko tànnuñu ko mais moo lay am. Ah, waaw moom la wax Lutte TV Awards. non Lutte TV tànnu ko. man man xam nga su fekkoon ne Lutte TV Awards su fekkee ne Lutte TV rek moo tànn. waaw mais Lutte TV dafa invité ay nit. invité naa fi kii nga xam mooy kan euh, Modou Anta. Modou Anta ñëw na fii. Babacar ñëw na fii Babacar ñoom Thier ñoom Thier Thier loolu tax man la dafa am rapporteur bu jaune ak bu rouge. non xam nga tey. supposons tey ak bu bleu ak bu noir. attends xam nga tey monde lamb tey. wala certaines. non pour pour pour teg seen place dafa am lu muy wàññi. mais bu rek Fadam koo invité. non keneen ki ñëw wala ñëwul man Lutte TV fu ñu mës a invité ñëw na. waaw moo tax ma ne moo tax ma ne n'est-ce pas xam tey foo dem. y a des centaines de journalistes. benn journaliste bi voté. Sénégal ah. a des milliers bëgg a yàgg ci làmb. waaw yàgg nga ci yow sama nee naa la ma ci benn animosité ak kenn. dëgg la am naa fulla ju toll nii. Mm-hmm. place bi ma nit ki teg rek foofu laay taxaw. Mm-hmm. beneen place nag man bi may man maa koy man je suis man je suis d' ma sa avec ci la. Mhm. ça me coûtera absolument man je suis d' accord ça ne coûtera absolument rien du tout. man je suis d' accord ak yow sur une chose. ça mooy que mooy que tey même bu ñu même bu ñu invité loolu peut être mënoon na dugal par téléphone d' mais tey tey supposons tey Lamine Samba tey. pourtant su ma juumul Dembélé Dembélé nawu def na lu ne pour mu invité ko mhm. malheureusement dafa tekki ni wala dafa amul jot maanaam côté boobu la am na ñoo xam ne dañ leen invité def bi sax mënoo sax wax ko lii moo tax ma lay mu ñëw mhm. ngeen def si émission ñu def si lu tolloog quatre à cinq émissions yoo xamante ni tey mhm. dañ si wax laaj ci ay nit laaj ci ñoo xamante ni tey dañ bokk ci monde xam mais mënoo invité noonu ñun ñëpp xam nga souvent man je ne parle d'invitation man pour invitation safuma man taxaw naa ci plateau bu ne. wax naa fu ne. mais kon kon kon mais damay dama la jox benn exemple. waaw man damay basé wu seulement yow ci say termes pour di la jox ay réponses. parce que man aussi. mooy termes yi boo ko utiliser rek. waaw dafay nécessité euh, réponse man aussi jël war nañu mën a xewle benn affaire. Ah. Uh-huh. jël ibakan bii rek. voilà teewul ñun ñëpp. mu teewul monde la yëpp daal. waaw sans pour autant le terme. Uh-huh. dañu distinguer woon ay nit. wala dañu ciblé ay nit. dañu ciblé moo tax ma ciblage bi mooy. les reporters et journalistes lamb mooy cible bi. reporter bu ñu leen ciblé woon reporter yi ngeen ciblé yëpp. Hmm, baaxul waaw non ma baaxul de. gis nga li mu wax tu vas. non damay laaj rek damay laaj rek. non non ma ah. <laughs> ah. amul man ku ma ci ëpp mbir ci la. loolu am na. je ne parle pas. moo tax ma yéene la waaw kon li ma wax man fii bassin bi ne laa juddoo. lu ma bëgg wax ci digg bi laay jaar. non bu si épée muy kay. non waxuma Boucar Boucar Boucar plus habilité à léegi sama gars yi débat bi débat bi ba ñu ñu am na keneen ku ci bokkul. ak keneen ak ah. keneen ak keneen. nangu ñu lool ñu jàll si premier sujet ah, mais loo gisee lii xoolal lii. Uh-huh. est-ce que ma bi. waa acca waa acca Boucar doxalal. ah <laughs> euh,